di bal ñep ak comme niko yalla waxe ci alquran euh, waye bu balonté ak bi jàllee ñu continuer suñu combat moy waxante deug ci deug gi ñu bëgg réew mi tege ci deug pour doomu réew mi gis seen bop ci réew mi man euh, Sénégal rek la am Sénégal rek la bëgg judo Touba Mbacké màgge fa yaro fa euh, am lu ma borom dëkk ba dig moom Serigne Touba Xaadim Rasul ñu naan ko ku tedd ki muy ëllëg yomal xiyam mu dox sama diggante ak borom bi ba man maa dugal foo xam ni sama liggéeyu bopp xëy na mënu ma faa dugal. loolu lañ ma gëmloo te loolu lu ma gëm la gëm naa ni kenn du ko waaye li ci des muy sama dund dundu àdduna nga xam ni moom ci boppam waxuma ni sama àdduna moom moo ko yore àllaaxira la ma dig. sama aduna mako yoral sama bop mo waral may dang dang bu fi ci amerique nek fi di dan dole pour dundal sama bop dundal sama njabot ak sama fami ak sama nday ak sama bay luma ci deful ci ñom du dem ci ñom kon lolu ci samay loxo la nek donc lolu nak ci suñum rew ñi ci gis sen bop manal ko fa sen bop dañoo bari wul manam aduna bi dañoo dafa am ño xamni ci jamono ji dañoo seddo askan bi Euh, naan seen xel yi lekk seen yuur yi comme ni ma ko amee habitude di ko waxee ñii jaarale ko ci tubaab bi ñii jaarale ko ci diine bi wala mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo liggéey liggéey bu baax bi fi nekk tey ndono ñu fi bàyyi ñenn ci ñoom amatuñu capacité dëggal li ci seen maam yi bàyyi woon ba léegi dañoo laqatu ci aw sant ci seen biir muy ay lobby yu nekk senegal muy politico maraboutique que ça soit ñi ñi sant Mbàkke wala ñi sant si wala ñi sant ñas wala ñi sant taal ñu boole seen bopp ñoom ci seen bopp créer seen benn lobby bi tuddee ko AIS muy benn organisation boo xam ne dafay yore lu jëm ci wax wala dox wala ci këri diine yi ñu koy wooyee tarixa yi am ku ñu teg ca bopp ba nag muy njiit la mu sant Mbàkke xam ma sax nu mu tudd ma dégg mu génn bërki démb wala démb def benn live wax joo xam ne maanaam man dama cee jële yaraanga ak gàcca li ko waral nag ci laa bëgg a dugg ak yéen dama cee jële tiitaange jële ci yaraanga jële ci gàcca parce que damaa gis moom bu daan génn di wax d'abord day ànd ak dal day ànd ak teey ànd ak teggin yu mat sëkk mais démb gis naa mu baral débat bi

sénégalais simple sénégalais Diogé Casamance sant Sonko sant bo xamni ñi ko xam sax ñew da am ñew dem ba am ben représentativité bi ci réew mi dem ba commencé toog toogaayu Khalif général toog toogaayu président de la république toog le sultan machallah yalla yàlla na ko yàlla lafal cat lu ñuy gis la actualité Sénégal la kenn mënu ko niyee ci kaw lolu nak dama dégg déclaration bi mara bi def bërki démb ma dégg ci soxor ak iñaan ak fiiraange fiiraange gi mooy Ousmane Sonko danañ dem ba bu ci kanamee askan bi ni ñu koy dégloo dootuñu ko dégloo sax benn xali généraux te li ci garaaw mooy moom nee na moo représenté tarixa yi Sénégal cest à li mu wax xaw ma moom la engagé ak groupe bi nga xam ne ñoo organisé lobby boobu wala yi diine yëpp la engagé parce que man de Touba laa juddoo yaroo fa di murit saadix mais li mu wax man engagé wu ma parce que suñu àdduna bii Ousmane Sonko laa mus a gis ku ñew pour diñu prêcher diñu war pour wax ñu nan lañuy mëna def bu suñu aduna ñu teg ci ay pour mu jël ko en charge réussir ko. loolu mom mom la askan bi doon xaar ba ñu juddoo ba léegi musuñu ko gis motax espoir bi bari ci mom man da anduma ak mais bis bu yalla sak mu wax lo xamni dama ci identifié wu gis ci sama bop motax tax baña gëm limi wax ndonte anduma ak donc loolu pouvoir bi ko ci yàlla defal ak ni ko nit ñi dawee jublu ji moo man leen a liggéeyloo te du leen fay te jàppoon nañu ku santul sant yi ma lim mënoo ko mu man leen demloo fenn ñu jëm te jàppoon nañu ku bokkut ci sant yi ma lim mënoo ko mu ñoo wax ñu gëm ko te duñ ko werante jàppoon nañu ni ku santul ci sant yi mënoo ko léegi ñi bokk ci ñi créer sant yooyu ñi donn sant boobu noonu te amuñu capacité def li Ousmane ko def ñoo ñu fiiraange moo leen dugal fiiraange gu metti moo leen dikkal moo tax ñu bëgg koo diaboliser ak askan bi mais li ma gis nii sorti bi dafay firndeel ni fa ñu jaarale woon du Dia fa lañ ko bëgg a jaarale ndax yoon bi mu aw mooy yoon bi Cheikh Anta Diop awoon yoon bi mu aw mooy yoon bi Mamadou Dia awoon te Mamadou Dia la mu taxawaloon bu fekkontoon ni bàyyi nañ ko mu ñëw tey suñu jafe-jafe yi duñ ci nekk am nañu sañ-sañu wëlbatiku dëgmal koo xam ni mu ngi ñuy wax nan la ñuy def ba suñu àdduna jag parce que àdduna dafa am solo bu amuloon solo yàlla du ko sàkk du sàkk maam aadama pour mu ñëw pour représenter ko nekk xalifaam ci kaw suuf du sàkk yonent yàlla Ibrahima pour mu wàcce ko pour mu doon xalifaam ci kaw suuf kon du sàkk Seydina Mamad pour mu ñëw lijjanti suuf si fi ñuy dund nii dund gi bu jaggu doon du ma mën a taxaw fii ci Amérique di wax ak yéen ngeen may dégg même bu ñu bokkul gis-gis dama leen koy ñaan ngir jëmmi Nabil Moustapha ngeen déglu ma li ma leen di wax. ñu def très attention sinon sunu Ousmane Sonko mii dinañ ko lor ndax ñu ngi koy commencé verbalement bu ñu demee ba bëgg koo ak diine yi ak këri tarixa yi dañoo fàtte ni dund gi ñuy dund du problème mu tarixa du problème mu diine problème mu jubal la ak dund gu war a jag te loolu mi ngi tege ci dëggu te ngóor sii dafa dëggu. man xamna ni serigne si mënuñoo bëgg Ousmane Sonko il faut mu def très attention dañuy def semblant parce que serigne président bu naïf bu bête bu melni ni Macky Sall la bëgg ngay ñëw ñu naan la xala xala wala kasiran xala yalla nee do ci xam lu toll ni tarfatal ay ni di jënd xaala jooju ñu jël di ko soppali or di ko dox sa diggante ak peuple bi di la ignorante ngay takk alal ji di ko def ci mala di len yott Sonko mo leen gëna xam yalla gën leena xam yonent bi parce que jang nako ci ñaari langue jang nako ci arab dem jang ko ci nasaraan xam sens bi man ko xalat ci xalam man ko wax man ko jariñoo donc koku mëno ko teweri ci diine mo leen gëna xam aduna téméri junion te mo leen gëna degg donc mënu ñu ko bëgg dañuy def semblant dañu bëgg dox suñu ñoon mais dama leen di ñaan askan bi Ousmane Sonko mi du problème mu amul murid, amul khadir, amul layen amul tijan.

dina la top te lol lañu Ousmane Sonko dig askan bi dañoo tollu fo xamni bo tegon tiabi aljana ni tek 10.000 francs ni ñu jël 10000 yi romb dem teral ci suñu ay jabot bu nekkatuñu ay bëy ba ngeen yor seen legati kesse diñu iri diñu nax ci ay affaireu paspek pas-pas ak li fi mag ñi li fi bi bàyyi magni def nañu li def dem nañu lolo tax ñun ñu gëm leen top leen man Serigne Touba Khadim Rasoul gëm ndax lam ma dik ëlëg la ki ma dig nag sama lu tey nii pour ma man cee dimbali sama bopp mën a jóge ci coono yi ma nekk ci États-Unis dem Sénégal toog kooku li ma wax dama koy gëm te lii yàllaa ko def Sénégal yeewu leen yeewu leen Ousmane Sonko mii boo leen seetaanee dinañ ko sànq Ousmane Sonko moom tamit dinaa ko wax benn affaire na jël ay responsabilités am mu ngi def semblant di jéem a jege sëriñ si mais danañ ko lor parce que fiiraange sëriñ moo gën a fiir buur. moo gën a fiir sultan moo gën a fiir président te mu ngi leen di bëgg a wuutu parce que li nekk ñoom ñi fi nekk ni tey jëlee la laa leen de mais li seen maam yi liggéeyoon yëpp ci ay année Ousmane Sonko mu ngi koy bëgg liggéey ci diir bu gàtt li liñ def ci suñu xel yi ban topp leen Ousmane Sonko yàlla defal ko ko mu naturel ñu topp ko te xam nañu bu continuer ñoom danañ ñu ñàkk moo tax danañ diaboliser Ousmane Sonko bëgguñu ko ñu ngi monter ay orateur énorme lu mel ni ay Thierno Mouride Il a créer di di influencé, il influencer muy à diaboliser Ousmane Sonko Sénégal taxaw leen ñu bagn taxaw leen ñu bagn taxaw leen ñu bagn lool la Il ci wax ci tabaski gi Sénégal